Bienvenue sur Salam Vision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez les programmes de Salam Vision, une télévision au cœur du développement. Voici quelques flashs d'informations présentés par Cheikh Safo. Sur le plan euh, politique, euh, après les émissaires des khalifes généraux, c'est au tour des universitaires et des organisations des droits de l'homme de demander aux autorités de libérer très prochainement, euh, dans toutes les conditions euh, meilleures et tous ces prisonniers euh, politiques. Nous allons rendre à l'étranger l'opposant guinéen Alpha Collé qui devait se, rendre euh, pour prendre part aux obsèques d'Ahmed Bakayoko, l'ancien premier ministre ivoirien qui est décédé, mais finalement, il a reboussé le chemin. Les autorités guinéennes lui ont, euh, saisi son passeport pour ne pas quitter le territoire national. Nous allons rendre au Niger, un deuil de trois jours a été observé Euh, des djihadistes ont pénétré dans un village de Tilabéi. Imaginez-vous, personnes ont été tuées par les djihadistes. Mesdames et messieurs, c'est tout de suite la version Wolof. tënk si kàllaama ko ci Ousmane Sonko mi ngi wéy def ay ay doxantu si parti politique yi ginnaaw bu nga bu mu waa FRAPP jot na waxtaan ak xam mooy Khalifa Babacar Sall lépp ñu doon waxtaan di waajal benn coalition bu mag benn coalition politique mën fi julee euh, mën fi jëlee nguur gi fi nag jamono ji. li dem si euh, ay euh, faux médicaments ay garab yoo xam ne dafa dëppoo la yoon ak ay cinébar yu bare bare leen teg loxo fële ca Kaffrine toll si ñeenti tonnes. bu ñu ko doon xaymal si xaalis toog na toll na si un milliard de francs euh, CFA di gërëm suñu mbokku doyen yooyu. Euh, li jëm si mbirum euh, vaccin yi xam nga nag coow laa ngi ne coowal jamono ji si biir réew mi am ñoo xam nag gëmatuñu vaccin bi mooy vaccin bi xam ne dañuy laam-laamee Sénégal yi gëm ñoo xam nag gëmuñu ko xam mooy Abdoulaye Diouf Sarr jëm ñu dénk wér-gu-yaramu Sénégal léegi nag Sénégal yi war nañu ànd ak yar ak dal vaccin yooyu xam mooy bànqaas mbo bi boot mbootaayu xet yi di OMS dañ ko homologué li jëm si mbirum euh, politique xam ngeen ni organisation des droits humains euh, ñi nga xam nag ñooy professeurs yu daara yi kawe ñoom ñi ngi woo nguur gi autorité yi ñu mën a euh, bàyyi lépp loo xam ne si ay mbirum prisonnier politique li ëpp solo waxtaan mën a ñëwaat diggante kujje gi ak nga xam nag mooy opposition bi bitim réew lañ koy tëjee dañuy doxantu fële ci Guinée Conakry kii di opposant euh, Cellou Dalein Diallo dafa seetlu jël avion dem fële ca Côte pour teew si obstacle ku xam mooy Ahmed Bakayoko ginnaaw ngénne àdduna xam na moom mooy takkade dañ ko teg loxo ñu moom du génn biir euh, Conakry dañu fàqati passeport euh, tëj ko fële ci Niger benn dëkk bi ñuy wax Tillabé yi wooyu fipp yi def ñu fa ay mbooso fas fa ay cinquante-huit doomu aadama xam ni fële ci mbokk yi ñu leen di gërëm leen sant yeneen xibaar incha allah fii Salam Vision jàmm jàmm